faire face à cette situation pour dire a changer doxalinu réew pour nous ñi am jàmm au moins dundigu yomb yeneen yi nga xam ne ko soxle mën yomb. c'est une compétence de l'ONAS xam nga euh, assainissement nekul compétence transférée l'assainissement est une compétence transférée maintenant ñun luñu mëne rek moy collaborer avec ONAS jokkoo ak mom pour m'accompagner mais on a vu que nous, tout Grand Yoff mais réseau OUG bi mi ngi gën ci donc mënuñ ci dara mais ONAS moo ko war a liggéey te am nañ yaakaar ne mi ngi ci mais en tout cas c'est très compliqué pour les populations de Grand Yoff